salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu yéen ñëpp man la Ami Jibril Gueye Ami Jibril Gueye bokk ci ndaw réseau des jeunes scientifiques mauritaniens ma ñëwoon tey di leen fàttali suñu ñaareelu édition journée de l'entrepreneuriat bi ñuy amal samedi le 20 avril incha allah de 10h à 17h fële ca CCIAM chambre de commerce chambre de commerce de l' industrie de l' de Mauritanie nekk si wetu BCM banque centrale mauritanienne foofu lañ ko defoon daaw rek moom foofu la ñuy lañ koy defaat ren tamit wante bi yoon nag thème bi moom dafa sukkandiku si wàllum mbay mi ak napp bi wàllum développement durable di leen ñaan nag su fekkee da ngeen am projet yoo xamante ni def si jëm wala amagoo leen projet ngeen ngeen bëgg am projet yoo xamante ni si yooyu la jëm. Euh, tey nag jox nañ leen occasion boo xamante ni soo leen ñëwee di ngeen si am incha allah solution yu leer di ngeen ñëw incha allah ñu jox leen ay solution wan leen nag nan la ak naka la ngeen koy defee fii nga xamante ni moo moo di suñu dëkk di Mauritanie di la ñaan nag ngeen teewee ko incha di dinaan ci ñaan jigéen ngeen ñëw ngeen teewee ko venez en masse votre présence est vivement souhaitée ngeen ñëw incha allah rabbi merci beaucoup à samedi incha allah